combat bi neex na bëri nañ ko daan nañu kontaan nañu ñëpp kontaan nañu. affaire bi xam na la ku ne bay sa waatal mu des fii mais Sa daf ñëw sigil wanteer suñu combat te la ca waroon def na ko. rërëm mbër mu ni ërtal la ca fi mu toll daa feeñal turu rëg-rëg rëg dafa bañ ay dóor mbër mu bëri ñuy dóor la amul garde xam ñu ngi wax MMA MMA MMA fa dajal ñëpp ñi fa dajaloon ñëpp moo leen mën da leen day indi mbapat daan leen doog leen a dóor ci kaw mais ba mu dajee ku mën a dóor ba mu ko dóoree daa xam saay kon Reug Reug dafa bañ ay door li mu bëre mooy respecté consigne rek ndax démb gis nga lu ko ëmb yow Balla Gaye 2 bu mu bëree ba léegi xam nga kenn gisu ko mais boo gisee démb mu jaral ko déplacé wu ñëw nga xam ne kon bis bi ñor nañu ko li Sa Thiès bëree dafa dafa parce que boo xoolee Salif li muy dóor yëpp nu nguuta dóor dóor loxo droitam gauche bi lay cookaase parce que droite bi laaw la comprendre nga. kon dañ koo teeloo droite bi muy muy muy muy dóor a boo xoolee sax gauche bi mi ngi ko doon dóor bu dalee day baax mais dese naa gën a kii parce que droite la gën a mën a dóoree mais droite droite bi dañuy ragal bu dóoree mu ëpp. Sadio li mu ko waxoon la def si signature bi moom lu mu la wax si signature da koy def da lay bëreloo ba nga bàyyi duma la doog laa daan aw nee ñibbi kese du la def leneen loolu la sekk ak gaay loolu kese la sëkk ak ñoom duma daan. Reug toogal Sa Thiès baayam moo duma sa baay daan ko Sa Thiès jàpp la duma la. ca wóor na yàlla boo leen defoon jabar ak jabar jabar ak jabar laa la wax xalisa jàpp sa jabar ñuus ko. waaw ah, mais arbitre nit la nit day juum arbitre dafa juum dafa def erreur rek loolu dañ ko siy comprendre quoi mais ak lu làmb ñëpp xam nañu ne Sadio daan monde entier xam nañu ne Sadio daan. làmb dafa war a am vaar sport boo amul vaar amul fenn làmb Sénégal dañoo war a dépasser loolu. écrasement boobu noonu vaar a ko gën a yomb. Sénégal léegi sport professionnel la ñuy dépenser ay millions di fay ay millions. Lol, sport professionnel la kon war na mën a am VAR. mais VAR weesul dem lu ñu taalal écran géant bi ñu taalal dem ak lamb dem ñëpp a wax ñëpp a taxaw wax katapi am na katapi taw waxuñ katapi jël la am na. rëg-rëg dama koy wax leen rëg-rëg nekkal sportif rëg-rëg nit ñëpp Sénégal gépp dañ laa nawoon nangu ni bokk nga ci ndaw yi dàq bëre mais Sénégal dañ laa weddi ndax sa xol bu bon Sénégal dañ laa weddi ndax sa soxor gisa mbër du soxor.